looy yàqamti booy julli subhanallah da ngay gis ñoo xam ne bu ñuy julli yow da ngay xam ni kii ci boppam kii julliwul kii foo lay def kii day caaxaan subhanallah nga gis allahu akbar alhamdulilah rabbil alamin maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal lazi wax wax yàqamti allahu akbar sami allahu liman hamidah allahu akbar ñëwaat akbar allahu akbar allahu akbar akbar jóg allahu akbar nani allahu akbar lii lii foo la lii du julli bu dee nii ngay jullee pendant santan tuubal gaaw avant dee di ñëw ndax lii bàkkaar yu rëy nga dajale nar ànd ak moom sa biir bàmmeel yowmal xiyaama nag mooy gën a metti booy julli na nga dal booy jàng nga def ndànk jàng tey ci sa jàng di dégg looy jàng boo rukoowee nga dal mu jub xocc boo siggee nga dal ba taxaw ba jub boo sujootee tamit nga dal nii boo ko defee yàlla yërëm la waaye yàlla boole la ci ñooñu li ba bés benn yàlla na yàlla boole ci ñooñu kon nañu moytu incha allah mbokk